car pour la première fois l'équipe des Lions de la Teranga remporte euh, la Coupe d'Afrique des Nations pour sa 33e édition. Hier, après avoir dompté les pharaons d'Égypte yàlla dogal nu am ndam seeni kaw loo xam ne ni boobu ba tey gaa yaakaaroon waaye yàlla dogal na yaakaar tasul kon enfin la coupe yegsi na fii ci réew mi gannaaw ndam lu rëy loolee nga xamante ne am nañ ko foofu ca nde président de la république Macky Sall moom ngeen di seen à distance noonu di euh, jokkoo ak euh, sunu mbokk taskatu xibaaru RTS lay zoom ku baa ngi noonu yegg si na ku baa ngi noonu yegg si na Kalidou Koulibaly Sadio Mané derrière Kalidou Diao Baldé Keita Famara Diédhiou Kalidou Koulibaly est là il a remis le trophée au président de la République Macky enfin la coupe en la coupe vient de fouler l'aérodrome du stade euh, de l'aéroport militaire euh, Léopold Sédar Senghor euh, gaynde yaa ngi noonu di wàcc benn par benn Bouna Sarr yeneen kee seen Diao Baldé gaa yaa ngi benn par benn Saliou Ciss ngeen di seen ca kaw noonu gaa yaa ngi noonu di wàcc enfin enfin coupe bi yegsi na enfin coupe bi yegsi la Coupe d'Afrique des Nations. lui a été remise par Kalidou Koulibaly. Voilà, c'est important de le rappeler. Capitaine de l'équipe du Sénégal, Kalidou Koulibaly, qui vient de remettre la coupe au président de la République Macky qui enfin reçoit le trophée. dem nañu wuti ndam li jëli nañ ko kon ñu déglu hymne national bi ñu déglu ñu sargal gaynde yi ci ndam lu rëy lii nga xamante ni def nañ ko. Le grand champion très ngeen am en live en direct mooy yegg si noonu ci tapis rouge bi.

Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en compagnie de Aliou Cissé et en compagnie de Khalidou Koulibaly, vont rejoindre la scène qui a été. la présidente de la République Macky Sall mi ngi noonu di ñëw. Euh, fas yéene ànd ak. Euh, ce moment fort. ne vous inquiétez pas. une autre photo pour ici une autre photo pour ici une autre photo pour. voilà donc Abdoulaye. Euh, merci voilà on va éterniser ces moments forts. Pour la première fois, le Sénégal remporte voilà. la Coupe d'Afrique. Voilà. voilà. le président de la République en compagnie du capitaine Khalidou Koulibaly et de l'entraîneur Aliou Cissé qui soulève ce trophée continental. Le Sénégal sur le toit de l'Afrique, sur le toit de l'Afrique. Voilà, et son excellence qui tient sa coupe, qui tient sa Coupe d'Afrique des Nations, monsieur le président, qui tient sa Coupe d'Afrique des Encore une autre fois. Yaou Dial, merci. Abdoulaye, c'est un moment fort merci. dans l'histoire d'un pays, Sénégal. Enfin, le trophée foule l'aérodrome. Voilà. Voilà, Macky ngi noon yëkkati loxo Aliou Cissé. sàkk euh, woon nañ ko yàlla dogal na ko. bi nga xamante ni tey jagleen nañ leen ko fii ci aérodrome aéroport militaire euh, Léopold Sédar Senghor c'est fait. Enfin, le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal euh, sous ok kon ñu bàyyi Ablaye mu jëlal ma image yooyu noonu gaynde yi seen photo de famille bi voilà gaynde yaa ngi noonu Ismaïla Sarr Kalidou Koulibaly Abdoulaye Seck Boulaye Dia Joseph Lopi Abdou Diallo Sadio Mané Seyni Dieng Gana Gueye Edouard le Sénégal qui gagne les lions en communion avec leur famille les lions en communion avec le public. bain de foule tout à fait DJ Boubs c' est important lu lii guleet mu am ci histoire du Sénégal rëy na. rëy na rëy na rëy na macha allah. merci pour l'accueil chaleureux. Ciao Keita Baldé. merci Keita Baldé. merci Keita Baldé. merci Kalidou. merci. Sadio Mané le Niancho, toujours égal à lui-même, qui avec Khalidou Koulibaly, euh, ils von remettre le trophée au président de la République Macky Sall compromis voilà kon mbokk yi euh, c'est fort c'est moment ndam li nga xamante ni ñu ngi ko doon xaar boobu ba tey yàlla def na li gën jël nañ ko ñu ngi doon di ko jox président vraiment ni mu ko bëggee woon noonu lañ ko ko defalee. voilà kon Macky Sall a ngi doon di soulever enfin Macky Sall soulève enfin. le trophée continental qui pour la première fois Sénégal daal koy jël c'est historique mbokk yi voilà coupe baa ngi noonu Macky Sall yëkkati na ko c'est fort le Sénégal uni comme un seul homme un peuple un but une coupe enfin le Sénégal pour la première fois remporte la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations kon mbokk yi ñu bàyyi la ngeen dund en direct sur Sénégo ces moments forts ces moment forts forts forts de l'histoire du Sénégal Euh, Senghor n'a pas la chance de le faire euh, ni Abdou Diouf ni Abdoulaye Wade mais euh, xëy na yàlla dogal na ko ak Macky Sall qui soulève enfin trophée ndam laa ngi noonu kon mbokki ñu bàyyi la ngeen euh, gis lii am fii ci aérodrome aéroport militaire euh, Léopold Sédar Senghor. voilà Aliou Cissé Aliou Cissé coach coach. Aliou Cissé qui le champion et qu'on applaudit s'il vous plaît en compagnie de son excellence le président de la République qui tient sa Coupe d'Afrique des Nations. Aliou merci beaucoup Aliou merci merci merci et tu comprendras pourquoi on dira merci encore et merci merci Sadio Mané